mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi leen di nuyu ca di leen siyaare tey nag ñu jàkkaarloo kenn ci jàmbaari sëriñ Tuubaa yi di sëriñ Modou Kara Sylla moom sëriñ Cheikh Sylla Diwane moom sëriñ ma Mapaté silla ma nga xamante ni moo jébbalu ci sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa boole ko maam Cerno Ibra Faati Ndaamal Daaru jëriñam ju tedd ji nga xam ne nii nag moo fi ko nekkal ci kaw suuf di Serigne Modou Kara moo am ab soññee rek boo xam da koo bëgg a soññi mbooleem taalibe yi nga xamante ni danoo jokk ci moom mu doon seen jëriñ ci kër Seexul Xaddim am liggéey boo xamante ni da leen caa bëgg a soññ woo ca mbooleem taalibe yi kon ñun ñëpp ñu maase déglu Serigne moodu Kara Sylla mu Serigne Cheikh Sylla mu noo ngi sunu xalifa sunu xarit suñu wëlëre sëñ Muntaxa yàlla wéral ko te guddal aw fanam te boole koog njabootu sëñ Touba gépp sëriñ Abbas Mbacke sunu sëriñ yàlla yàggal ko fi ak njabootu borom daaru gépp xalifa borom diwaan sëriñ seex Fat Sila Ndiaye yàlla yàggal ko fi te wéral bu loolu jàllee nag damay waxtaan ak ñi ma yàlla boole ndokk ba nga waxee sama bëgg-bëgg xam nga boo ma waxoon fii lu dul nekk seen jëwriñ rek naa la mere. Sëriñ Touba mooy koo xam ne la waxoon ne. liggéeyal naa yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu fayee ma adduna fayee ma alaaxira daana wax ne ku yàlla bind boo xaree xol ba fekk fekk ma ci man ahmadul xadim sa àjjana liggéeyal naa la ko mais soo ko ñàkkee yaa ko xañ sa bopp léegi nag li war a fayee Serigne Touba nag mooy liggéeyal ko liggéey bii nga xam nag dañ koo sémb te sémb ko te ay ay ay kilifa yu jege Serigne tubaa sémb ko defe naa ne seex bu ngeen dem këram day rus ba pare soog caa ma bëgg a wax man li may bëgg a wax du bari képp koo xam ne ci man la aju te nekk tubaa ci laa koy tàmbalee soo amee sa ab dépasse weer te génne woo 1000 yi nga xam ne moo jëm ci liggéey bi yaa wax ne maay sab sëriñ waaye jàpp naa ne man doonatuma ko Sénégal géppit nag ak bitim réew maa ngi leen di ñaan mboolem ku nekk bitim réew waxuma ko teg bi de du ma ko sas aw ab teg lam man ci dooleem bu tegee ba noppi na ko ci boole wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ñëwoon fi tey nag ci kàddu Touba ca kanam ci jëruñu di sëriñ Abibulahi Mbàkke Cheikh Amadou Fadam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo la àndal liggéey bi kàddu yi nag kàddu yi cant la yoo xam ne Touba Ca Kanam gépp tàmbalee ko sëñ Habibou ba si ñi si gën a suufee da nga kaa jëm la si Amadou Karaam yi li tax loolu mooy weer wi ñu nekk di août 2020 mel na ne àdduna bépp xam nañ Touba Ca Kanam ñëpp rii nañ wut si Touba Ca Kanam ba ni soog tàmbalee muy door muy metti sa la yëkkati woon kàddoom tàbbi si liggéey bi bokk si ni si ñëpp yi bokk muy sa Daarul Moxti cent tommeeg 23 janvier 2017 boobu liggéey bi amagut at amagut weer ndax premier janvier la tàmbali 23 janvier ñu génn dem Louga wàññee ko fekk ko Daaru Muxti mu guddi lool mu jël sa engagement yu am solo yu mat yëg nañ mbooloo mu baree bari ñoo xam ne tàbbi nañ ci liggéey bi tegay seen jëwriñ te sa kàddu yooyu moo taxoon kon lool nag ñu ngi sant bu baax a baax te xam ne woote ba nga woote woon kat xañ na liggéey bi daa tool fa xam laaj na ñun labaleer ko waaye taal bi déggoon nañ ko wisi nañ ko kon nag soo watwaatee nii xel dana gën a dal dana gën a dal yaakaar dana gën a dëgër kon nag sëriñ bi nee na mi ngi sant bu baax a baax ndax kuy liggéeyal sëñ Tuubaa di sa góorlu ña sa gën a yaay gën gën saa yell mooy mag ñi nga xam ne nag ñoo àndoon ak sëriñ bi ba muy jafe joxoon ko seen lépp ku wooteel sëñ Tuubaa ab liggéey te gisoo si seenu njaboot war ngaa war ngaa tiit war ngaa jaaxle waaye nag boo geesoo gis leen si nag da loolu dana dana la dëgëral kat na la mu wóor na li ngay war suñu Tuubaa nangu ko lilaahi maskanitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat